qultu wax naa ne wa man talaba kuy sàkku ridwaanal waraa ngërëmal mbindeef ya bi rab bi yi jënde ko merum boroomam faxumrun kon ab dof la zukaraa buy boroom ngëmeen nee kuy sàkku lu neex nit muy ngërëmal nit ba merum yàlla di la ca fekk xamal ne kon danga dof tey nelaw boole ci ndax fa lay sa yoxu ñii ka du la jëriñ rifal xalqi ngërëmal mbindeef yi isa lam turdi ndem gërëm loowoo mawlaaka sa boroom faxid kon na nga jéng xanza bàyyi lii ñu ngërëmal mbindeef lisa jëm ci lii muy ngërëmal yàlla ñeneen mbindeef yëpp buñ maasee ci gërëm la te yàlla moom xarab la moo yàlla gërëmu la su boobaa ngërëmal mbindeef yëpp yëpp du la jariñ dara dara dara kon nag wuti ngërëmal yàlla te dawal wuti ngërëmal yàlla sori jekki di wut ngërëmal mbindeef yi wala tey du la lor suxtu man merum ka nga xam ne xasayta mooy nga loxoo ñeel ko ida ardayta dem gërëm loo nga sa borom te nee itam ku la mën di mere ci mbindéef yi ndax rek ñàkk goo ñàkk topp la ko neex waaye fekk na moom yàlla gërëm la jeex na bu la yàlla xasee gërëm moom ku la man di mere du la wàññi dara kon dafa safaanoo bu la yàlla gërëmee ku la mën di xarab du wàññi dara bu la yàlla xasee xarab ku la mën di gërëm du jariñ dara wa fi'lu shay'in def dara qabla an ya'lama njëkk muy xam maa la nga xam ne xakama àtt na ko fii ci loolee rabu samaay borom asamaan mutlaqan ak lu mu mën di doon loolu kat mimma bokk na ci li nga xam ne xadd xaruma araam na xalaa mukallafin ci mukallaf dana mukallaf sañu te jekki-jekki song menn mbir muy mbirum àdduna muy mbirum alaxira te fekkul mu xam la ci yàlla wax mooy la ci lislaam àtte bu fekkee mënoo koo xamal sa bopp mënoo koo seetal sa bopp nga seet boroom xam-xam boo xam ne doyloo nga ko ci ak xam akuk maandu lu mu la wax rek nga topp loola bu ñu nee sàkku xam-xam faratale ci bépp diir bu góor ak bépp diir bu jigéen rek mooy nga fexe ba loo toll rek ci sa xam ko muy mbirum àdduna muy mbirum àllaaxira lu tolloon topp téere yi di ko jàng na ba géeju ci man caa dimbalee man caa xettalee loolu moom bu ko ay benn benn defee yoo xam doy nañu rek mu daal doy ndax loolu fardu kifaaya la waaye kenn ku ne xam la la war nag moom fa toll xam ko nag moom fardu xëy nin la faratay jëmmali ci xam-xam xaj gim jiitalal taaxal lu mën xam lu xalaa xibaadatin ci jaamu yàlla na bala ngaa futtiku ne daay jaamu yàlla na nga jiital xam lu bu baax njëkk ba xam ni ngay jaamoo yàlla ndax def loo xamut day jafe ndax boo jéem a jëf te xamoo li ci ëpp la ngay yàq mooy yëpp la ngay defar kon bala ngaa futtiku ci jëm ci jaamu yàlla na nga xam lu njëkk ba xam ni ngay jaamoo yàlla wa fil kitaab bi nekk na ci téereb alquran fas aloo laaj leen a zikri ñooñ xam-xam alquran nee na fas aloo ahla zikri in kuntum laa la ta'lamuuna daa xam ne ñëpp mënuñoo bokk maase ci xam mu bëgg nag ña di laaj ña xam ña di tontoo ko leeralal ña xamut fekk sax boobu da wax yéefar yi di weddi yonante bi naa leen laaj leen ahlul kitaab maanaam al yahuud wa nasaara ña amoon i téere ndax xëy na ñoom ngeen di gën sax ci Muhammad ak li muy wax waaye bu ngeen laajee ñooñu ñu wax leen lu dëppoog li Muhammad di woote ngeen xam ne li Muhammad dëgg la hmm. nag ñu gàttal ko rek ci ku xamut na laaj ku xam rek daal Tuubaa taxe li man ñel na koo xam ne xam ma yitte woona bi ay ci xam-xam da nazarin mbir muy boroomuk seetantal nee na ku yitte yoo xam-xam nangoo seet nangoo jëfe la nga xam xamal ne rek am nga texe ba noppe wa man tajarrada ku futtiku li taaxatil jël yi li jëm ci topp aji màgg ji xabla taxalumin ci njëkk xamlu fa xumrun ab dof la laa nabiirun bëgg du aji xellu nee na ku futtiku ne daay topp yàlla ku futtiku ne daay topp yàlla te fekkul nga jàng ba xam na koy toppee mu ne kooku dafa dof rek waaye mënusta topp loo xamut da ngay njëkk xam lu njëkk ba leer leerlu bu baax a baax ba xam yoon wi door a xam na nooy toppe o man taallama koo xam ne xamlu na bila muallimin ci kudul aji xamle maanaam ci kudul ab jàngalekat mu xàqiqin bi aji dëggal dañuy firee mu xàqiq aji waaye mu mooy koo xam ne enquête na masala yi bu wóorlu ko bu baax a baax a baax wala jublu ci al mu xàqiq na innahu naka kookee du waxamin boroom njuumte la nee na boo jógee bay jàngi ngay fekki koo xam ne xam na bu wër a wér a wér nga mën faa jële lu wér a wér waaye nit lu mu laabir laabir lu mu amut mënu koo joxe kon faaw na nga fekk koo xam ne ak xamu wér na nag nga jëlee ca moom boo ko deful rek juum nga ndax la nga fa fekk rek nga fay jëlee mënoo faa jëlee lu fa amut faj ji tax yi doo na ngeen farlu fi xilmi ci xam-xam yaa ixwaani yéen samay mbokk wa taaxatil mawla ak topp buur bi bila tawaanin ci lu yeex ne maa ngi leen dégg ngeen farlu ci yaar xam-xam ak topp yàlla farlu ci xam-xam gu wër te jëfee la ngeen xam jëfe gu wër ngir yàlla loolu na ngeen ci góorgóorlu bu baax a baax ndax man faataxoo koo xam ne raw na ko alxilmu xam-xam maxat taaxaati ànd ak ay topp yàlla fa soo fa yàlla mu xarsat naa xam la dal mamaati fa faatu ga nee na yaar yi raw muy xam ak jëf ji yiw xam lu rëy raw na ko bis bu dee faata na xam ne raw leen lu rëy rëy waaw maanaam koo xam ne daal xam-xam gu wër ak jëf ju sell raw na ko bis àggee ci faatu dana xam ne rawle na lu rëy rëy wal yaqtëj nay roy alxaajudu aji jaamu ja bil muttabihiina ci way topp ña li sunnati rasuli ñee sunna yonante ba ahmad te mooy ahmad al amini kadi ku ñu wóolu shafiina kay sunu aji ràmm salla yàlla na dool tedd nga allahu yàlla alayhi ci moom musalliman mbir mu aji dool di ko wóolu wa kulli ak képp koo xam ne waalaahu méngoonte naag moom nee na boo bëggee jaamu yàlla da ngay fekk ñay topp sunna nga roy ci ñoom ndax ñu aw ci yoon wa ba noppi yóbbaale la ca hmm. li mu tudd li mu tudd nag moo tax mu julli ci moom ñaanal ko yàlla doole ko salaatu salaam te ñooñu man mooy ñi nga xam ne amaroo digle nañu bi taaxatir rahmaani bi taaxatir rahmaani ci topp aj yërëme ji waxaddaroo te ñu wattandikuloo min taaxati seytaane ci topp seytaane nee na ñi topp sunna mooy ñi nga xam ne ba ànd ñoom dañ lay digal topp yàlla di la moytuloo topp saytaane wajitan yi boo na teet waaye mooy na ngeen bàyyi mooy na ngeen moytu rek ihwa an nafsin bànneexi bakkan wabtidaaxan ak topp bidaa wastaxiloo te ngeen di soxlawoo fii ku lixiin ci bépp waxtu bitti baaxin ci topp sunna nee na fu ngeen toll daal na ngeen di góorgóorlu ci topp suñu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moytoo topp seen bànneexi bakkan moytoo topp bidaa maanaam lu ñu sos lu jiyoog la yonante bi indi loolu mooy bidaa loolu ko moytoo topp na ngeen seen bakkan te farlu ci topp sunna idi ngir jumiha booleef na alxayru yépp yiw ci ittibaax ci topp sunna wa jumiha te booleef acharru yépp ay fi ibtidaa ci topp bidaa ndax nee na lu baax lépp dañ ko boole dugal ko ci biir topp sunna mboolem xeetu ay ak lépp lu bon ñu boole ko dugal ko ci biir topp bidaa nga xam ne booy topp bidaa moom ay wune mën na la caa fekk booy topp sunna itam yi wune mën nga ko caa du duumoo na ngeen sax xalor tiraadi nafsin ci tàggat bakkan abadan faaw wa xarbi seytaanin ak xareeg seytaan wa saydin ak rabbu lil hudaa ñeel fu ngeen toll na ngeen di jéem a tàggat seen bakkan di bëreeg seytaane sox seen fetal di rëbb jub nga xam ne jub mooy la ngeen di rëbb di ko wut wa baaw te ngeen bañ li am fusikum ñeel seen bopp waaye nag li am fusikumoo lay doon ci way wi yaa xàqiloona yéen way xellu ñi maa la nga xam ne radiya gërëm na ko al mufallasoona ña ñu sisir al xaasiroona ña dey perte te hum ñoom allazina ñooy ña nga xam ne bañ bayaxoo sànq nañu amaarahum seeni dund bi bil maxaasi ci ay moy wa maa lahum te dee di leen man koo xam ne yashfahu dina leen ràmm na ngeen dañal seen bopp la dal gaayee nga xam ne boo ëllëgee ci àllaaxira dañu leen di sisir mooy dañuy bari ay tooñaange lool lool ñu leen di sisir nag jël lu baax lañ yoroon fayee ko ñooñu ñu tooñal ñooñu nee mooy ñi nga xam ne dañoo jeexal seen dund ci tooñ jaami yàlla yi yemuñu rekk mooy seen borom waaye dañ cee boole tooñ jaami yàlla yi ñooñu boo lëgee bu ñu fayu ci ñoom bëgg ñu delloo tooñaange yi day metti lool lool te duñu gis ku leen ci timu ndax ak jàmbur moom fay rek lu tax mun a ian jëpp na nga yéem buka kaa axum seeni jooy maxal na daamati ànd ak reccu yow mal xiyaamat ci bis penc maxal malaamati ànd ak yaraange nee ñi nga xam ne maan wuñu woon topp ci jaam yàlla yi tooñ rek say boo tàmbalee yëm léegi bu ëllëgee jooyee ñi jooy ak rëccu ga ñuy rëccu ak yaraange ñi am koo xam ne nag moom gëstu da ko yitteel bu agsee ci yan seetluwaat ne mën na ñaari anam soo ne yan jàpp yéemal bukkaa ahum seeni jooy day mel ne kon min lañ fa dagge muy yan jàpp min bukkaa ahim mënees naa jàng nag ajib kawtiif mu yéem bu kaa ahum seeni jooy su boobaa day mel ne kon baa lañ fa dagge mu doonoon ajib bi bu kaa ihim loolu nag ñiy gëstu daal lay ëppal solo mu wax na nag lan mooy du waxaddu taflisin dëgg-dëgg sisif la daa man fa ka nga xam ne naqada gëstu na xam-xam ay yatee mooy bu dikkee ak sax su jëmm ji bi aamalin ci ay jëf xadan ci ëllëg kasaw mi ni ki koor wa silati ak jokk bokk was salaati ak julli wala xaaji ak aj wal xumrati ak xumra wal sakaati ak natta asaka laakin loxo waaye moom nag xasafa xasoon na xaasa kii wa akalate mu lekkoon maalan alal li haasa ñeel kii wa qatalate mu rayoon li nafsi za ñeel bakkanub kii dëgg-dëgg sisir moom nee na mooy li ñuy wax fayit maanaam jëmm ji taxaw ci àllaaxira indiwaale fa jëf yu yu bare bare bare bare mel ne daana woor daana jokk bokk daana julli daana aj daana xumra daana joxe asaka waaye nag daa maanduwutoon am na ko taxaw ne ko yaama xasoon mooy yaama waxal ne ma njaaloo nga mba def nga nangam nga nangam ci yu demee ne njaaloo am ko taxaw ne ko yaa jëloon sa alal lekk am ko taxaw ne ko yaa ma reyoon waxal ci loo ma reyoon warudda na min fu tukkee ci moom kulluma lépp loo xam ne xadd amila jëfoon na ko ci aw yiw li man jëm ci ña nga xam ne faala defoon na bihim ci ñoom maa la nga xam ne xadd faala defoon na ko dañuy jël lam defoon lépp ci lu baax nangu ko faye ko ñi nga xam ne ñoo koy taxawu naa ko fay ma fay ma fasaarati mu mujj xaasiran di aji perte faqiran te aji ñàkk ba'da saa ci gannaaw lii walam yu barra te setalee fu ko nee na bu nangoo ci moom lam amoon ci lu baax lépp ba deseetu dara dara bu fekkoon ne tey la muy mat na kon sax mu tane waaye dañoo nangoo ci moom lam baax le woon lépp lépp fayee ko borom bor yi te taxul mu matal loolu mooy walam yu barra te setalee fu ko mooy lam war fay ba tey matagut kon lu ñu def mooy su ma uxi sa topp jàppeef min hum ci ñoom ñoo ñeemu tooñan maa la nga xam ne xadd janaw tooñoon nañu ko dina duróo bi ci ay bàkkaar xeexuna fii ilayhi jëme ko ci moom kay yasidaxoo ngir mu dolli ko fi maa ca la nga xam ne janaa tooñoon na ko dañuy wax ñooñe ne leen yéen kat waa ji war na leen a ay yiw waaye du seetul wenn yiw kon nag dañu jël dañuy jël seeni ñaawteef sëf ko ko xam nga negam waroon na leen jox lu baax waaye amul lu baax bu leen nang bu leen nangoo yanu seeni ñaawteef rek moog jox leen lu baax ñoo yemoo te gis nga moom di seetul dara lu baax lu mën a joxe su boobaa dañuy seet ñooñu ñu tooñ ne leen andi leen seen yu bon yi ñu jox ko kii li waroon a jox lu baax te amul leen jox xam nga waa ji moom jeexaloon na takk tàkk ba amatuloon lu baax ba des ba lu bon dong dong xoolal nag léegi lañ ko yokkal ci dañ koy dolli ci lu bon loo xam ne. dañ koy jëlee ci ñee mu waroon fay te mën leen a fay mu daal di boole nag ñaawteef yu baree bari te li seetul wenn wenn wenn wenn yiw moo tax mu naa fasaara te mujj xam lu foo yanam ba daloo xam di aji diis laa la foo di ko ñeel mis lu fatin lu toll ni fatin baax da nafsima ci gannaaw nangu la nga xam ne la foo ñeel na ko mu ne xoolal nag léegi mu desee yanu bàkkaar bu diis boo xam ne deseetul nag far ci wetam dara dara lu baax ndax la yoroon ci lu baax lépp nangu nañ ko fay ñoom amee lu naq ba jël sax ci ñaawtee fi ñooñu di ko yokkal ndax daa fekk da ciy tun lu baax lu mu leen mën a jox da ciy topp nag mooy tuma yu saaxu topp def na ko jiital baax de za ci gannaaw lii bila tawaanin ci lu lu yeex ilal xasaa bi jëmee ko ci mbugal fi niiraane ci sawara ya kon nee na fa saa fi saas daal di koy jiital rek yóbbu ci mbugal bu sawara ga moo fay sës kasaani ki nii naqal naaxu la mu ko toxale xam ni raïs jële ca kilifa ga ahadana yal na nu musal allahu yàlla mina tafliisi ci tafliis googule te mooy sisir googule nee na li wax kat ab addis la dañ koo toxal andi ko fii rek waaye noonu la ko yonte bi waxee mu lee ko nam ko waxee rek mu ñaan yàlla musal nu ca nag fa nasalu dana nu ñaan arrahmaana aji yërëme ji rabbana kay sunu al aljalila kay aji màgg subhanahu sorelal naa ko lépp li yellu ci moom tawfiqa sunnati rasuli mu dëppale noog sunu senante bi muhammadin te mooy muhammad habibina kay sunu soppe sayidina kay sunu sang shafihina tey sunu ajramu marjuwina tey ku ñu yaakaar sunu nabiyina tey sunu yonante noonu ñaan yàlla mu baax mu màgg wi mu may nu dëppale noog sunu si yonante bi nu sax ci biir ak biti yonante bi nag mooy muhammad di sunu soppe di sunu sang di kanuy tinu bu ëllëgee di kanu yaakaar di sunu yonante salla yàlla na doolu tedd nga wa sallamati dooli wóolu alayhi ci moom sarmadan faw rabbu samawaati borom asamaan yi waman ak képp koo xam ne ihtada jube na bihi ci moom fu tudd yonante bi mu ñaan yàlla dolli ko salaatu salaamu ak képp koo xam ne yaa ngi góorgóorlu di jéem a jube ci moom di jéem a roye ci moom faslun li ab dog la fi ci laab gannaaw bu yàlla jàllee julli moo gën a màgg ci lislaam te julli balaa baax laab da koy jiitu moo tax li ci ëpp buy jàngale fiq day njëkk a jàngale laab inna taxaarata naka laab taxaaratul xadasi mooy laabu xadas bilaa xilaafin jëlul benn wuute wa taxaaratul xabasi ak laabu xabas nee laab day ñaari wàll genn laab gi mooy bañ a juddiwaale sobe ci say yére ak ci sa yaram ak fa ngay taxaw di julli loolu moo tudd laabu xabas bu mujj gi am na lu ñu tuddee xokkumul xabas àtteb xabas loolu mooy sobe sa boo ko dindee lu bokkut ak ndox ma nga ko war a dindee jëmm ja dañ ne waaye àtte ba dafay des moo tax mel ne tey bu la soobee takkoon ci sa yaram mbaa ci sa yére nga dindee ko ndox mu melul ne mi ngay jàppe ni ki nga dindee ko saabu ki sa yem ci mbaa ndox mu soppiku soppiku bu aay kon day mel ne jëmmi sobe si dañ ne waaye àtte ba ba léegi ma nga fa maanaam ba léegi war nga ci awale ndox mu mel ne ma ngay jàppe du aajo du aajowoo fete mbaa raxas mbaa dara waaye nag faw nga awale ca kaw ndox mel ne ngay jàppe ndax àtte ba fa nekkoon deñ kon nga jàppale foofu ne bu la neexee sobe taq la nga njëkk koo dindee saabu mbaa ndox moo xam ne melul ne ma ngay jàppe waaye nag gannaaw ba faaw nga awale ci kaw ndox mel ne ma ngay jàppe say yére itam kat bu amee sobe bul fàtte ne boo ko fóotee saabu kese bàyyi ni nga aadawoo fóoti rek tirub kese du doy dana aajowoo nga njëkk koo fóoti saabu ndegam neex na la saw yaramit noonu mbaa leneen tam noonu ndegam am na sobe daal moom tey nar nga koo julliwaale bu la neexee njëkk koo fóoteeg saabu mbaa leneen luy gaaw a setal waaye gannaaw ba nag bul fàtte awale ci kaw ndox mel ni mi ngay jàppe moom dugg ko rek ku duggee rek mu daal di baax du aajowoo fetewaat mbaa raxasaat mbaa dara laa bug xadas gi nag mooy bu ko jàpp waree mu jàpp bu ko sangu farata mu sangu bu ko yooyu yaar téye mu am ca ngànt mu daal di tiim yaari laab yooyu nag mën ñoo ñàkk laab gi mu njëkk a wax te mooy bañ a julliwaale sobe wax ji gën a wóor ci yoonu Maalik mooy mënta ñàkk su julliwaale sobe tey ko te waxtu waxatut amul benn ngànt kon julli ga du baax da koy baamu faaw faw faaw bu fekkee ne nag daa mënta tàggoog sobe sax mbaa da koo fàtte ba julliwaale ko kon julli ga baax na daañu sopp rek gannaaw ba bu mënee tàggoog sobe sa te fekk na waxtu wa jeexut mu baamuwaat ko ca waxtu wa biñ ne baamu ci waxtu wa nag mooy julli gam njëkk na julli baax na dañoo sob rek su waxtu wa jeexut mu baamu ko waaye bu waxtu wa jeexee du jarati baamu laab gi mujjee wax nag moom mooy bu ko sangu farata waree mu sangu farata bu ko jàpp waree mu jàpp bu amee ngànt ba mënut yooyu mu tiim moom mënta ñàkk moom dem naa dem ba nga xam ne sax moom su waxtu wa jotee ba jeex te amu fa lu mu laabe du ndox du suuf sum tiimi mbaa lu wecc suuf kon googu julli wàcc na ko du aajowoo mu di ko julliwaat waaye nag su ko fàtte woon defe ne jàpp na fekk na jàpput mbaa mu defe ne sangu na farata fekk na sangu sanguwul farata ba julli gannaaw ba mu door ko fàttali bi itam nag moom du tax lam defoon baax faaw day jàppi ko sangu waree mu dem sangu ko tiim waree mu dem tiim door a julli waaye fàtte woon naa ko rek ba jàpp ma mbaa sanguwuma mbaa tiimu ma moom du tax lam defoon baax ndax googu laab moom dañ koo diisal lool lool way kullu képp min huma ci ñoom ñaar bi maa in nekk la ci am ndox taahirin muri aji laab mutahirun tey aji laabal yuslihu moom dana yowénal xindal maahiri fa aji ñaaw ja aji ñaaw ja mooy ku yeewu ka nee na yaari laab yi kenn ku ci nekk ndox lañ koy defee te ndox ma te laab te mën a laabal ndax ndox mën naa laab te du mën a laabal maanaam bu fekkee ndox mi lu ko soppi day lu laab li ci ndox mi dafa dem ci wala suukar wala soow mbaa yu mel noonu ba nga ko caa xàmmee kon laab ci naan mbaa togge mbaa sangoo sangum saabu nag mënta laabal mënta laabal mooy mënoo caa jàpp mbaa sangu farata mbaa sangu sangum jaamu yàlla ni ki sangum sunna wala yóbbu ko nag yooyu du ko mën kon day aajowoo ndox ma laab te mën a laabal mooy man mooy mi mu la bëgg a wax waxu moom allazi mooy ma nga xam ne lam yataxayyar soppiku wut saw mu xoo ñamam nga mooy nam ñame woon soppiku wut ay li mu ci namm ta amu xoo cafkaam nga aw riixu xoo wala xetam nga aw law nu xoo wala kulóoram ba mooy melaw ma bi maa ci loo xam ne yu faariqu dana teqlikoo moom bi orfin ci aada wala nga ne bi orfin ci baax ndax mi nga xam ne laab na te mën naa laabal mooy mi nga xam ne melawa soppi ko wut caf ka caf ka ga soppi ko wut ci dara loo xam ne mëneesoon na koo moytu nga xam ne moom ndox amuñu jote nde sax la ko soppi bu fekkee mënees ko woon a moytu ndax yàllaa ko boole ndox moom du wàññi dara waaye nag bu fekkee la soppi ndox mëneesoon na koo moytu ba du ko laal saw rek a leen di boole lu mel noonu bu soppee ndox ma dana ko yàq ci wàllu jaamu yàlla te desamit ni ki ak ñaay ñaay mooy jeexiti diw fekkee ndox mi diw da caa dem ba ñaay ba nga mën ko caa xàmmee kon xam nga diw ndox amuñu jote ci taqoo mbaa dara buñ jotee rek sababa leen boole kon moomu ndox doo ca mën a jaamu yàlla ni ki jàpp mbaa sangu farata mbaa yóbbu ko ci wanawo mbaa raxase ko sa yaram te fekk mu am sobe mbaa fóote ko say yére te fekk mu am sobe bu neexee nag wala dëkkin aku nekk lu mel xeetu gerees nekk yooyu ne moog ndox amuñu jotee bu soppee ndox rek yàq ko ci wàllu jaamu yàlla waa wamaag loo xam ne ka jirniix yi mu ngi mel ne jirniix na xam waaw jirniix nag daa am matière boo xam ne yàllaa ko sàkk mu doomu taal nga xam ne moom bokk na ci matière suuf si moom bu fekkoon ne ndox maa wal romb ko rek mbaa fa ñu dindee ndox ma rek moom fa ñu tame ndox ma rek mu am jirniix mu soppi ko lool du ko yàq waaye dañuy def jirniix nag léeg-léeg ñu defar ko ba nga xam ne dana mën a wat kawar des na ko nag def pasen bu ñu rey janax yi rek xeeti yàq mbay mi yooyu xam nga su boobaa kon sopp nañ ko kon léegi jamono nga xam ne sopp nañ ko nag moom bu soppee ndox mi dana ko yàq ndax loxo doomu aadama moo ko soppi kon nag bu soppee ndox mi dana ko yàq zirnix daa bokk ci xeeti mbell yi maanaam xeeti matière suuf yi nga xam ne bi yàlla liggéey suuf ci coobareem da koo soob mu defaale ko ca boo de xool sax ci saraab siraaju salik day wax ne alkibriitu mook azirniixu lu ci nekk rek xajarun asfaru lahoo raaixatun aw doj la woo xam daa puur maanaam daa roos te ame xeet bu ko defee lu mu ci mën doon na jàppal ne mboolem xeeti matière yi suuf yi daal moom loo ci xam ne ndox a ko romb ba tax ndox ma soppiku mbaa fa ñuy gasee ndox ma mooy fa ñuy jële ndox ma soppi ko ne waaye loolee fa yàlla dëkkal muy xeetu mbell moo xam sirniix mi mbaa ay xor la mbaa leneen la loolaa ko soppi bu yàq ndox ma ndax loolu mënees ko woon a moytu ndox mi wal rek romb ko mu soppi ko mbaa fa ñu jëlee ndox ma ci boppam moo amee matière boobee loola soppi ndox ma loolu lépp moom du ko yàq waaye nag gannaaw bu loxol doomi aadama soppe matière boobee nag def ko neneen nag boo wëlbatikoo def ko ca ndox ma maanaam bu fekkee dem na ba taseeg ndox ci sabab rek nga xam dëkkaale wuñ defuñu dara sababa leen boole nag su boobaa moom dana yàq ndox ma wal wasi akub téef ab cër bu fekkee sopp na ndox ba tey doo ko mën a jaamoote yàlla wal sayit ak diw moo xam diw la moo xam pétrole moo xam leneen la bu soppee ndox rek dana koy yàq ci wàllu jaamu yàlla wakkas saabu ak lu mel ne saabu wa sawli ak diw ñor xul waxal wan xëy ak lu mel ne ñoom mën nga ne woon xam yaa ak lu mu ñoom yëpp daal saagoog diwu ñor ak suukar ak kafeeg lépp loo xam daal loo xam ne moom ndox am amuñu genn jote dañuy dem rek ba yàgg sabab boole leen loolu bu soppee ndox ma bañ mën koo xàmmee ca cafka la mbaa xet ga mbaa couleur ba dana ko yàq ci wàllum jaamu yàlla dañuy seet ne ba xam ko soppi lu mu doon mi bu fekkee la ko soppi lu laab la nga wax kon ndox ma dana baax ci wàllu togg wala naan wala sangoo sangam saabu ay demee noonu bu fekkee la ko soppi day sobe nag moom mel ne sawum fas wala sawum mbaam walla deret wala sàngara bu fekkee kenn ci yooyu moo soppi ndox ma nga mën koo xàmmee ci cafka mbaa xet mbaa couleur moom jeex na mënees ko jëriñooti lu may xanaa jox ko ak mu naan wala nga suuxate ko mbay rek loolu lay mën ndax la ko defoon sax boo ko bëggee jëfandikoo da koy raxas ba mu set ndax sobe su ci nekkoon laa tey bu du caageenu ban aw xasin wala cepp dañ ko faral di maas téere yi xis waaye xas ca koy xoole ci téere yi xas moo fa nekk te moom sax firiwuñ ko fa cepp dañ ko fay tudde nabaatu tuxlub gàncaxu tuxlubu waaye wala fi mel ne ñoo koy firee cepp aw sabxatin wala suufus xorom aw turaabin wala suufus kese aw tuxlabin maa i wala mbaalaa mbaalum ndox bilartiyaabin ci lu benn sikki daa wax ne bu fekkee la soppi ndox ma nag yàllaa ko booleek ndox ma ni ki suuf suuf moom yàllaa ko booleeg ndox lu yàgg-yàgg suuf ma boo ko tibboon xëpp ko ci ndox may du tax ndox ma yàqu du tee mu mën a jaamu yàlla ba tey béréb bu am xorom ni ki suuf su am xorom bu ko ndox ma rombee baa fañ koy tàngay moom ndox moo am xorom it du wàññi dara xorom it yàllaa ko booleeg ndox mbaalaa mbaal mi juddoo ca ndox ma it mooy wert yooyu bàyyi walax njaan itam du yàq dara ca ndox ma bu fekkee ne ban ba ndox may bàyyi ko dafa xong cooy mbaa mu ñuul kukk mbaa mu xeeñit du wàññi dara ca ndox ma mu des nag xas moomu nga xam ne moom lañuy ñu firee ceeb moom aajowoo naa teylu moom daal xeetu gàncax la moo xam ceeb la moo xam du ceeb bu fekkee ne nag ndox ma dafa wal romb ko moom gàncax googu ba tax mu soppiku moom ndox ma du ci wàññi dara bu fekkee ne itam fa ndox may moo am gàncax googu ba tax ndox ma soppiku du ci wàññi dara waaye nag bu fekkee dañ ne ceeb la doomi aadama dem dagg ko def ko ci njaqam nag dugg mu neex xet waaw su boobaa kon say boo moytu ko bañ koo jaamoo yàlla ndax loxol doomi aadama kon léegi moo ko soppi bu wér ndax moo dagg gàncax googee neex xet ndax neexale ko xetuk am ndoxam mbaa neexale ko cafkal am ndoxam fas li ab dog la fi izalati najasati ci dindi sobe wa maag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bihaa ci dindi sobe day bëgg a wax birum nag dindi sobe bu la sobe taqee ci sa yére mbaa sa yaram mbaa fa ngay jullee noo koy dindee ak la ci aju isa ta'ayyanat ndem ràññi ko na najasatun sobe xosila kon raxaseef almahal lu béréb ba taxabudan ngir jaamu yàlla bi mutlaqin maay ci doxu mutlaq nee na bu fekkee sobet laa taq waaye xam nga fa mu a ak fa mu kon béréb boobu rek boo ko raxasee kese mu doy da nga ko raxasee nag ndox mutlaq maanaam ndox moo xam ne melawa soppikuwut caf ko ga soppikuwut xet ga soppikuwut ci dara loo xam ne luñ mën a na moytu la nga ne ko waaw waaye mel na boo ko dindee woon saabu mbaa yooyu lay gën a gaawte lay gën a set mu ne la nag taxabut la taxabut mooy dañu ko digal te xamuñu lu tax xaj sax ñu wax ne faaw da nga koy dindee ndax mutlaq dañu ko digal boo ko sañee dindee meneen bu la neex dindee ko meneen nag waaye faaw nga awal waat ci ne moomu maanaam mel ngay jàppee kon jàppale ba nga soobee sa yaram ci sa yére mbaa fa nga waaye xam nga ne fii la tàmbalee fii la yem du aajo bu dee sa yaram ngay sangu lépp lépp aajo bu dee ak tappi mbaa ay yére lépp lépp nag mu nga fi soobis tàmbalee ak rek boo dindee diggante boobu boo seet rek mu di baax te dindee ko la ndox mutlaq laakina mag taw bi waaye malaan ma yoo xalu def na ko raxas mooy def na ko fóot xumaaman ci ak matale in askala ndem lënt na najaasatun sobe yaa rajul ya waaje waaye nag nee na bu fekkee sobe daa dem ci sa yére mbaa ci sa yaram mbaa fa nga jullee te mun laa xam te mun laa xàmmee fam ci tàmbali ak fam ca yem kon kat bu dee malaan maa lépp ngay fóot bu dee sa yarama da ngay sangu benn yoon rek ci ndox mu baax na ne mi ngay jàppee bu dee sa jaada mbaa la taxal boo fu ci sobe sayam xam nga dem na ci waaye mënoo xam ne fi mu tàmbalee fi la yam lépp lépp ngay fóot kon wax yu wax ji leer la bu la soobee taqee ta nga xam fa mu tàmbalee xam fa mu boo dindee loolu képp mu doy ci wolof xaj lañ koy wax xaj xaj am balaan mooy dindi rek fa mu yemoon dañu raxas lépp lépp waaye nag bu fekkee ne xamoo sobe si fa mu tàmbalee fa mu yem sa yaram la moo xam ci sa yére la moo xam fa ngay julee la lépp lépp ngay boole raxas lépp lépp ngay boole fóot ñu door a xam ne dañ na wan nabaxu wis ga dinaa yi ci am ndox iqtahi na nga xeñtu waajibun aji war la ida shakakta ndéem sikki sàkk nga fi isaabati najisi ci jotu sobe sax nee na bu fekkee dangaa gis loo xam ne wóor na ne sobe la li nga nattale ndax laal na la wala loolu la mel ni nga romb am mbaam muy saw mbaam muy xayta wala nga romb bax la nam sal daamul xayta wala nga romb xaytay ganaar xamoo taq na wala taqul la lu mel noonu li nga gis moom xam nga ne jëmmi sobe la li ngay nattale kay mooy ndax laal na la wala laalu la day war nga wis sa yére bu dee sa yére bu dee fa ngay jullee tam nga wis ko ngay jekki-jekki as ndox rek daal ci wis boo wisee benn yoon rek mu doy bëgg rek nga bañ a jax-jaxi sam xel bañ a yàqu ci loola mu des na bu fekkoon ne sa yaram la borom sa yaram nga koy fa raxas benn yoon xam nga